julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan jàmm ci réew mi ak réew ko wër jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si la mi nekkoon jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara tabaarakallahu xam ngeen ne ubboon nañoo ko yéen lu jëm ci solidarité lu jëm ci azaka tabaarakallahu waaye fan yii dégg ngeen it ñu tàmbalee wax ci lu jëm ci euh, local yi yëkkatiwaat kàddu gi te nu duggoon leen ne bu nu ko yëkkatiwaatee nu delsiwaat ci ndax li kulli maqaamin maqaal te professeur Arfan lislaam féeti woowul seetaan lislaam du diiney seetaan déedéet du diiney sama yoon nekku ci lislaam diina la joo xam ne lu fi ne ci pénc mi du yam ci bokk ca waaye day laaj ne moo ko war a diriger àdduna deme ni deme nekkoon foo dégg ci àdduna si danga fa dégg ay dirigeants yu ko mat yu taxaw di ko doxal lu moo tax du seetaan jamono jëm feeñee ca Makka ba ni alyawma akmaltu lakum diinakum wàcce amul lu ma sa xew ci Madina mbaa Makka mbaa ci àdduna si lislaam ñëw seetaan xam naa ñu bari ci ñun dégg nañu xilful fudul ñu bari ñun dégg nañu xilful fudul mooy xew-xew bu xewoon ca Makka collu joxonte loxo pour defar pénc ma keroog ba ko aleyhi salaatu déggee dégg ngeen kàddu yam ca def wax ak taxawaay ya moo tax lislaam du diine seetaan waa àdduna nag nun lañ ko bëgg a def moom ne ko yow toogal seetaan nun nu dem yow toogal nga seetaan moo tax réew moo dégg ñu réewum laïcité la li muy tekki mooy lislaam toogal seetaan nun nu dem loolu baat bi loolu rek lay tekki nit nu koy firile nag nu koy firile du bokkut ak li muy tekki ndax nun nit ñu ko firile mooy réewum laïcité mooy réew moo xam ne mii ku nekk day dund sa diine waaye déedéet loolu firiwu ko li muy tekki mooy réew moo xam ne duñ laaj diine seen xalaat duñ ko ca doxal dañ naan ko toogal seetaan ñun ñu dem ñu tax lislaam du diine seetaan kero bi subhaanahu fa fas yéene wàcce nit ci kaw suuf it dégg ngeen lam ci wax inni jaa'ilun fil ardi xalifa ab xalifa nag munta nekk ci xilaafa gi mbir di xew ci pénc mi mu ne yoonam nekku ci inni jaailun fil ardi xalifa waaw mu ngoog moo ab xalifa nag mënut a yor xilaafa gi ci pénc mi mbir di yo mbir di xew mu ne yoonam nekku ca loolu loolu lis lislaam noonu la wax euh, yonent bi alayhi salaam noonu la ko jàngalee léegi li ma bëgg wax lépp rek mooy local yi jege si na walla mbind mi tàmbaliwaat na mbind mi mooy ki musta wate walla ki masa wate te akartam am problème walla mu war bëgga a soppi adresse jële ko fa mu daan watee yóbbu ko feneen fu bokkut ak fi mu daan watee loolu yitte ju am solo la ci nit def lu ko mooy du bokk boo tayalee doo bokk boo jëlul sa temps doo bokk boo ko sabantalee doo bokk boo ko tegul fenn fi doo bokk te fala nasalanna allazina ursila ilayhim laaya la wala nasalanna al mursalina it laaya la yépp borom bee ko wax subhaanahu wa taala tax kuñ buñ tollee ci jamono yii ne dañuy yee salaat mbind mi dañuy binduwaat ma ne ci lislaam kon nun ñépp nañ jóg yeesalaat ca ña war a yeesal binduwaat ca ña war a bindu waaw mbind mi mooy lan mooy fexe ba am carte wu ñu tuddee carte d'identité ndax mooy moo lay mooy wan nit ñi ne yow ab sénégalais nga maanaam bokk nga ci pénc mi pénc mi du caageeg ne rek ku jóg ne man bokk naa ci carte d'identité nationale la wax mooy li muy tekki mooy bokk nga loolu ngay lijjanti ba am ko waaw te yaakaar na ne ab ab ab sénégalais nationalité waru koo jafe carte d'identité waru koo jafe waaye daal loolu moom ab ab jéego la bu njëkk bu war a am mooy fexe am carte yi wane na yow am nga identifier nañ la national waaw loolu lu ci am solo la carte woowu it jëloon nañ fi fi ne ñu ngi ci ñetteelu carte woowu amoon nañ fi jamonoy Abdou Diouf carte wu tuddoon carte d'identité basan gi basan gi nga xam ne dafa yaatu woon nekk ñaari lef euh, ñu mu tuddoon basan gi ñun ñoo ko tudde woon ñun waa penc bi waaw diggante Senghor ba ci Abdou Diouf carte woowu mooy dox bi Maître Wade faloo indi geneen carte d'identité bu tuuti waaw bu tuuti ñu amoon wee am nañu am wii ñu amutoon wee am nañu am wii am nañu amagul woowu amaguñu woon woowu bi Maître Wade wàccee président Macky falu daal di indiwaat yeneen carte d'identité muy yii fi nekk tey nga yaakaar ne xëy na nit dana falooti indilaat ñu yeneen mbaa mu delloo si basanga waaw xaw ma nag carte moom lum ñu def ak luñ ko def lu ne ci ginnaaw ak luñ ci xamut lañ ci xam ak la ca laxasu loolu lu ci mën di xew rek carte daal mi ngi fi léeg-léeg gis koo xam ne ki fi ne mi ngi ak ñett yëpp dëgg la bu njëkk ba compte wala bala tut deuxième bi noonu troisième bi fi nekk mooy dox waaw troisième bi lañ wax ne fi ne mooy dox waaw am na sax numéro bu ko booleeg xëy na numéro bële waaw waaye daal ñoom ñu ngi noonu carte d'identité yooyu bu njëkk nag carte d'identité bi daan am euh, Alioune Sall waaw doomu diw ak diw bokk ci région sàngam département nàngam waaw taayam nàngam la nàngam lay liggéeyee wax wax ba xam-xam yooyu yëpp boo tiimee carte d'identité bi rek mu wan la adresse yooyu yëpp mu wan la ko ci bi nu amee bu maître Wade bi xam-xam yooyu wàññeeku biñ amee bu mujj bi yooyu gën a wàññeeku yooyu gën a wàññeeku léegi nag foofu lañu ñu toll ci mbir mi bu ñu tollee ci bindu kon ñaar ñii la kii musta bindu walla kii bindu woon na ñi musta bindu dafa mel ni kon élection yi ñu jëm mooy seen première élection ñu tàmbalee ko ci local yi jëmale ko ci présidentiel jëmale ko ci législatif waaye carte wu da lay wan rek ne yow am nga sañ maanaam da nga koy wuti ba am sañ-sañu wati penc mi it léeg-léeg ñu wutul nit aw carte d'identité walla carte électeur ne diw mi sañu tawate loolu nag moom neexute lijjanti diw mi sañu tawat sañu tawate xamuñu nag lan moo ko xañ àqi wate ci lu nu yëgut waaw xaw ma ñu ban technique a tax ñu ne ko yow doo wate waaye dégg naa ci carte daal am na ci yoo xam ne def na sañ def nañ ca amoo sañ-sañu wate waaw def nañ ko ci kon nag léegi jamono ji ñu toll mooy rek góor ak jigéen mag ak ndaw koo xam ne sa 18 ans mat na jëm kaw jaadu na fuñ na la ana sa carte d'identité rek nga ne mi ngi nii an sa carte d'identité mi ngi nii waaw ndax pièces yooyu dafa baax ci nit nga gànnaayoo ko ndax mooy tax nga mën a boll nga mën a bokk ci ahlul xalli wal iqd ñi fa saka fecc ñi fa saka fecc loolooy mën a tax nga bokk ci kon kenn ki daa nara bokk bokk gu njëkk nga xam ne ren jii boo may tudd ci la dugg ci dix-huit kon ci lay war a am sañ-sañu tànn ki muy dénk ab lokaalam waaw tànn ki muy dënk ab lokaalam bu ñu àggee ca présidentiel ya mu tànn ki muy dénkum réewum bu ñu àggee ca législatif ya mu tànn liste bi muy dénk assemblée nationale mbokk yi kon nag loolu jar na di xëy di gont ba baa ngay jot ci carte woowu sañsañ boobu ko defee nga dem ca fa ñuy binde yow mi door am dix nga dem ca fa ñuy binde dem fa ñuy binde it bëggoon nañ ci nit ki bañ faa dem bëgg a wane ne nii laa mel maay kii lii laa bëgg a def maay nii yooyu mën na caa ñàkk ndax li feeg nit ñi dugguñ ci urne yi tànnal lokal tànnal local bi kiñ koy dénk dara xewagut te sëriñ Babacar Si radiyallahu taala anhu daana wax ne nit ñaari xob la am xob bi ci biir gémmiñ gi ak bi ci poosam ñaari xob yu la am nee bu fekkee élection jot na dencal xob bi ci biir gémmiñ gi te wate xob bi ci sa poos bi ne boo noppee ci li ngay wate nga dem ñibbi yóbbaale xob bi ci biir gémmiñ gi mu ne waaye bi ci biir gémmiñ gi li muy defar daa bariwul moo tax denc gee gën li ci bi ci poos bi nag moom mooy falaka folli kon génnee koo gën kon nag ñun ñëpp nañu ànd dem ca barabi bindukaay ya ñun ñëpp ñi amoon carte dem vérifier ji seet ba xam waaw vérifier ji seet ba xam waaw nun fi ne fi ñu daan watee changé wuñu euh, centre ba déedéet changé wuñu centre ba changé wuñu numéro bureau ba waaye changé nañu classe bañ ko doon def mane fiñ fi ñu daan watee changé wuñu centre bi ci boppam kenn changé wu ko mi ngi fi mu nekkoon ba léegi changé wuñu numéro bureau ba ma nga fa ba léegi waaye classe biñ ko doon defee nag changé nañ ko waaw changé nañ ko léegi nag loolu boo toogee ba ñu ne tey la wate yi nga jóg bu fekkee fa nga doon watee changé nañu ko man ngaa ñàkk xam fu ñu la yóbbu kon bi nga bindoo bañ ne la centre sàngam ci darkale fa ngay watee boo ca demee ci bureau sangam fa ngay watee boo solee sow dàll ba ca centre ba boo xoolee da nga gis numéro bureau bi ñu la programmé boo ñëwee ci bureau ba boo duggee jox sa kàddante d'identité da nga bëgg gis ni effectivement yaa ngi ci liste boobu nga tànn ñi ngay tànn génn ñibbi loolu nag dafa aaji ab liggéey aaji taxawaay aaji woo ni ma ko waxee ci tàmbali bi nga yëg ne responsabilité tànn ci nga toll masuliye boobu ci nga toll mooy tànn ki ngay dénk sa sab local loolu mooy tàmbali bi moo lay tax bokk ci alul xalli wala eqd tolloon na jamono ci jamonoy saxaaba ya mu bàyyi agi daawul génn jàkk ji mu bàyyi agi daawul génn jàkk ji bu ñëkkatee loxo ñëpp seen bu ñuy jaayante ñëpp mën nañoo jox jox loxo angle bi di gën di yaatu nag angle boobu moo gën a moo yaatoo yaatu bañ def ko léegi ay kart waaw boo ñëw suñu réew mi tolloon na jamono joo xam ne mubaayaa gi walla bokk vote bi dañu naan ndar ngay dëkk mbaa tëngéej mbaa gore ndar ngay dëkk mbaa tëngéej mbaa àngal boobu yaatoo yaatu ba waa càlleeg cilmaxa ma bokk àngal boobu yaatu ba wàccal leeg wàccil ma xambaakol ñoom ñépp ñu bokk loolu lu ci am solo la mu tax kon su xasee jot rek ñun ñépp nu jóg bindu ji góor ji bindu jigéen bindu am sa carte d'identité dem wane ko ñu defal la carte électeur wala ñoom ñaar muy lu automatique ngay am bii am bii waaw xam naa jamono dana ñëw ñu boole leen ñoom ñëpp wenn xob waaw ñu leen daan boole bu njëkk ca jamonoy yu carte d'identité yu njëkk ya su fekkee ne dangaa bind woon nga dem vérifier ji gisoo sa tur ci liste ba lool ngay toppatoo ba gis ko ñu la effectivement yaa ngi ci woon yaa ngi war na watee cil ma xambaakool mais ren yaa ngi watee tay ba ceken yaa ngi watee tay ba cekkeen centre sàngam bureau numéro nangam waaw bu dee Cerno Seck Cerno <laughs> Seck le douanier mu daal di vérifier ginnaaw dañ ko jële tay ba cekkeen yóbbu ko cël ma xambaakool loola comme vote yeeg yëpp ñëwagul Cerno Seck bu wanee euh, résidence <laughs> bu wanee résidence am ñu yëg ne ba cekkeel la dëkk waaw ndeysaan nijaay di way papaam <laughs> su boobaa toxal toxal adresse bi jële ko cil ma xambaakul indi ko Tayba cekkeen du lu jafe waaw walla ma nga parcelle unité sàngam waaw mu bëgg a jël adresse votam yóbbu ko foofa léeg-léeg loolu tam doon lu jafe ñu ne ci centre yi nag tey bind nit ñi ñooy ubbi seen dënn yëg ne kii li muy wut si moo ko moom bu ci dara amut benn gàllankoor waru ci am waaw galgalit waru ci am jafe-jafeñal waru ci am waaw ndax Alioune Tine lu ko yàlla yokk wér mi yàlla baaxe muy wër ci Afrique danay gis leeg léeg yu mel noonu bu rëq-rëq amee ni mën a jure ñol-ñol ak bu rëq-rëq amut jàmm rekk mooy am ma ne centre yi ña ca toog nañ ko defal noonu nit ñi nit ñi ñëw di bindu siit comprendre liñ leen di wax maanaam ana sa këyit sàngam nga ne awma ko ana kayit sàngam moom it nga ne awma ko ñu ne dama wuti kayit sàngam nga ne duma ko wuti ah déedéet su boobaa nag du noonu ana kayit sàngam nga génn ni mi ngi nii ana kayit sàngam woowu mi ngi nii ñu ne dama ca nga def nangam dem ca kee nga def nangam nga ñëw fii nga def nangam mu jeex waaye ana kayit sàngam nga ne ah, ko ana kayit sàngam woo it yoruma ko waaw tey da ngeen ma bind nag déedéet du duñ ko doxale noonu an sa kayit sàngam daf maa réer demal wuti certificat de perte waaw demal nga wuti ko soo dellusee nga am naa nga mekk nangam sama dante lay jël si an sa récépissé dafa réer ah yu yëpp ay mbir lay doon ca centre ba ak ñay dem ca centre ba nga xam ne bu yooyu leeree ñol-ñol mën na faa bañ am kenn du dem di inscrire it bëgg woon nit ñi ne man parti sàngam laa bokk waaw man parti sàngam laa bokk déedéet bul ko wane ca nangay ngay solo bul ko wane ca na ngay waxe bul ko wane ca na ngay jëfe déedéet loolu du bis bis boobu loolu yitteelu la li la yitteel mooy bokk ci list bi ahlul xalli wala aqd ba mën a fas mën a fecc loolu mooy li la yitteel waaye ci parti sàngam laa bokk déedéet loolu bu mu la yitteel nangam laa bëgg a def bu mu la yitteel waaw loolu moom bu mu la yitteel yow daal li lay yitteel ci état bi ñu toll mooy bindu ci ci ci liste yi vérifier fi nga bokk vérifier sa adresse ba lépp leer bu la neexee tëdd nelaw li des ci fii ak ñuy dugg weeru euh, ñu dugg atum deux mille vingt et yàlla nañ ca àgg te weesu ko yàlla nañ ci àgg te weesu ko kon boo xëyee nag daat damay dem ngénte ci sa damay dem céet ci ëllëg sa damay dem nangam yooyu nga xam ne ca la nogoy di xëy ca lay gont rek tabarkalla <laughs> yow ma saam sunu euh, sunu sunu jenn jenn yaay sunu jenn yaay nga xam ne li tàmbalee vendredi ba samedi du yendu ci kër gi daanaka du fanaan si rekk ba benn bis rekk doom ya daje rekk yóbbu ko benn clinique ne docteur téyel nu ko lu ko jot docteur bi ne lu ko jot mu ñu ne ko dara jotu ko dara jotu ko ah tax ngeen koy téyelu ñu ne day dem day dem ay xew ba fi ne bu ñu ko bàyyiwut ci mbedd mi lay tëdd docteur ba daal di koy di ndeysaan tànk ay butéelu ndox def ci wetam mu tëdd ba <laughs> seen xol sedd ñu ñëw delloo si jëkkër ga ne ko docteur bi ne na nga noppalu waaye daal <laughs> kenn mësu koo gis rek de moom xew ba docteur téye la ne la noppalu léegi nag xew yooyu du ñu ay xewi farata te dénkaane sa local farata la Mm-hmm. farata la dénkaane sab local farata la waaw xam naa bu liste yi génn te nun ñëpp nu sonn ndax parti bariwaay gi ëpp na parti bariwaay gi ëpp na moo taxit coalition yi bari na waaw bennoo yi bari na waaw waaye al xiyaabu eh, xiyaabul xisbu diini yi ndeysaan moom it fës na ne nañ réew mi ku nekk wutal sa parti lislaam nag yow doo fi amee parti ba ñu sàjjee ba ñëpp ñëw ba ñu wàlli ñu ne waa diine bokk leen te bu leen dof ndeysaan mbokk yi bind bi jeexut bu leen neexee ci kanam tuuti ngeen woote ci 88 628 98 98 ngeen bës 2 am na suñu jotaay bi nga xam ne lënd lay am ak mardi 8 heures lay tàmbali di jeex 10 waaw lundi lay am ak mardi 8 heures lay tàmbali di jeex 10 heures dañu nekkoon ci ak bër nag jamono yi nga xam ne ci leen ñu génn te mooy bër gi nga xam ne moo jóge woon ci tabaski wi léegi nag dellusi nañu alhamdulillahi rabbil alamin nu fas ko yéene dooraat noog yéen sunu mbokk yi xëy ci xibaar yaa nii taxaw yor seen i këyit bëgg leen na firiñ fàncal xibaar yi ci tubaab firiñ fàncaloon ko ci wolof ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu àndandoo bi C3S yàlla na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara in uridu illa al islaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu